commencé xam ci xew xew bii xew mu àgg ci moom ak fu mu toll bi yàlla def na ku ko xam ne dafa àgg ci boromam ba ne daa wax ci sunu maam ju tedd ja ak Cheikh Ibrahima daa wax ne buñ ko nee li génne ne àdduna mu ne alhamdulilah rabbil alamin ñu ko ne génn àdduna mu ne alhamdulilahi rabbil alamin Cheikh Mouhamadou Mountakha ku ko xam ku ne xam ne àgg na ci maqaam boobu ci diggam ak boromam lu ngi rëy rëy rek koy delloo ci yàlla ndax loolu suñu borom moo ko santaane ci alquran wax ne wala nabluwannakum bi shay'in min al xawfi kon ñu xam ne am nattu la nag mooy loo xam ne day gis ci bakkan lu maanaam waaye yàlla ñi ko wàcce te xam ne ndax ndax moo xam la tax wala nabluukum bi shay'in min al-khawfi wal-juu'i wa naqsin min al-amwaali wal-anfusi was-samaraati wa bashiri as-saabiriin allaziina izaa asaabathum musiibatun qaaluu innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون kon sunu baax mi fi bàyyi ko di Serigne Atou Diagne suñu mbokkum taal bi di jëm joo xam ne listaan bépp ko ñàkk rawatina la ñu yaakaar sëñ Tuubaa ndax ak njàmbaaram ak pëstéefam taxawaay mu fi bàyyi ko am na ci saxaaba yi ñu jaaxle woon ba àgg si di yëkkati jees yi di wax ne ku wax ne yonent bi bàyyi ko fi rek mu dagg sa bopp loolu doonu fi gan waaye ku xalaat ci loolu rek xool ci jumaa ju tedd ji ci Sëriñ Tuubaa xam ne kon adduna kenn desu kenn dëkku fi ak jaar waaye rek la waaye nag li am solo mooy nga jaar bàyyi fi loo xam ne ba bii ci kenn du ko fàtt kenn du ko fàtt falaw laa kaanina rasulun min qablikum ulul baqiyya ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا kon loolu na nga xam ne li am solo rek mooy bokk ci paquetu solo te moom nii nag may soog a jéggi daal ndax li tax mën ko jéggi daal rek mooy bokk ñëpp xam ne mooy ba mu jiitee léegi ñu ne ci biir gàddaay ak gàddaay yi dañuy wax rek laajal di jiite loolu jël ko yokkat mës ko dellu ginnaaw mës ko denc ginnaaw ñi déglu waxtaan bi man xamoon naa loolu waaye dégg naa ñu bari ñu ne ma teg nañ ay waxtaan yu yàgg ci jamono Cheikh Abdoul Ahad ba waaye mënoo xam ne waxi démb ak waxi tey loolu ak dogal ak positif di borom dimbal ndax. ndimbal nag mooy li am solo ndax ñun ñëpp suñ yitte ak suñ bëgg-bëgg mooy yaakaar Sëriñ Tuubaa ak doy loo ko xeenti jeexit Sëriñ Tuubaa jaay beeg Sëriñ Tuubaa waaye nag am na loo xam ni ndimbal lay doon moom nag dafa am ndimbal tawfeex ndimbal la rek mi ngi tàmbalee ci Cheikh Abdoul Ahad Cheikh moo ko dimbale gindi ko yar ko tàggat ko moom yéen ngeen ànd ko ubbi boppam ba mu xam fi mu jëm ak fi mu dëkkaat ba loola leer ci boppam ba dara moom ko yàlla fi mu ci baax kon moom borom ndimbal ndax gàddaay say bopp bàyyi adduna adduna soxla la nga bàyyi lépp jamono soxla la nga bàyyi lépp gàddaay yëpp loolu nag Serigne Touba fay na ko ci lu bare bare ndax ku fi nekkal Serigne Touba rek laq na sa ngërëm Cheikh Abdoul Ahad ñi ma doon wax nga xam ne yàlla def ne seen daara ji ci nekkam la sosoo woon mu joxewoon tur yi mu joxewoon liggéey ci nekkam seeroo la ko seereeloon na ko ne ko al muridu sadiq leetar moom bindoon sëñ bu Seydou Mane ci ay yitte yu mu ko doon wax ci moom def ko almuridu saadix kon loolu doon sëkk ndax loolu dañuy sàkku dund gépp kon moom sëriñ Tuubaa Cheikh Abdoul te ku ko xam xam ne Cheikh Abdoul Ahad dadaa wax naan plan ak positif dañoo nuroo waaye bokkut plan ak positif Cheikh Abdoul Ahad ku xam ne woon plan ak positif la kenn mësu ko mën a nax ci ci ci plan waaye moom dem na ba seere ko pëstéef kon loolu suñ seere si amatu solo la am solo mooy seere ga ko doom Sëriñ Tuubaa seere ginnaawam itam Cheikh Abdoul Ahad moo leen digaloon ni leen fu Sëriñ Tuubaa xëye fu ne na ngeen fa gonte fu mu gonte fooy na ngeen fa xëye na ko ko Cheikh Abdoul Ahad Mbacke waxe woon ñoom de topp nañ ko topp ngeen ko ba gisul leen ci dara ndax damay wax ne képp ku leen di sikkal da caa bàyyiwul xel ndax ki fi nekkee Serigne Touba kat yéen a koy taxaw taxawaay boo xam ne kenn mënu ko weesu wala kenn fekku leen ca loolu ndimbal la ndax daayira yi bari na fi waaye yéen seen yitte yëpp mooy ki fi nekk Serigne Touba boolewu leen ko dara doo leen ko jaawale dara loolu nag mooy ndax moo leen taxaw nu jukk kon nag yoon woowee nga xam ne ca lañ leen tegoon taw musu musu ko wàcc yéen itam Cheikh Abdou Khadir li muy gàtt gàtt fukki weer ak benn la fi am waaye ko ñëwoon ba cër bari ci ñëw siyaare si leen lu siyaare yi ngeen ko def siyaare leen seen positif ak seen digg itam noonu la ko ko daa seere la sëñ Sëriñ Saliou Mbacke Sëriñ Saliou waxtu ne ma ko daa fàttali da ko daa wax ne ko isa ay xasatka xurubul ada fanab bi ila amin summa nam mooy saa su la yitte dabee rek noonu la ko suñu saa daa wax fu ko yitte dabee rek wala loo xam ne nee na ci xelam wala mu am ca lu mu bëgg tam jaaxal ko nee na bu ma la ko waxee rek la ma ci bëgg dinaa ko ci am mujj na dem ba daaray boppam bi sax lépp ci liggéey bi mu dénk ko wala lu muy dénkaane ngir fonk gum ko fonk ak doyloo gum ko doyloo ba ci kër ga ko suñu saa yu doon jëndoo ci France yooyu yëpp xam ngeen manees na ne bokkutoon ci liggéeyam ndax moom ko ab liggéeyam sarsewu na ba fees sarsewu na bu fees ba dara day mel ne xajalaat ci dara sax mëntoo nekk waaye lu mu mu jële lu agsi rek sëñ bi dénk ko ndax loolu ne la ko waral mooy lu mu ko dénk dana ñoom te dana sàmm te lam ci bëgg dana ko ci am kon nag yéen na ngeen xam ne da di àlli Sëñ ginnaaw Serigne Saliou yi itam Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké ñëw dégg ngeen la mu ko seere loon la mu waxoon Cheikh Mouhamadou Lamine Bara ba mu ko seere bu géttu gay ne ne woon fee nga jàppaloo ko si benn danaa dem jëli ko foofu la positif ak doogu yam te waxu ko rek yam ci waaye da koo jëf man mi dund ak moom diggante fukki at ñett yii ci xilaaf ak Cheikh Mouhamadou Lamine Bara ci xilaaf ak Cheikh Sidi Moukhtar Cheikh Sidi Moukhtar daan na ko seeral di wax ne yé ñoom de li ma gën a yéem ci seen mbir mooy def lu baax sax yomb na waaye sax giñ ci sax ak way giñ ci way ña xam dara mënu koo soppi dara mënu leen wëlbateel jaxandaam kii fi nekkal Sëñ Tuubaa nag di Cheikh Mouhamadou Mountakha seen digg moom mbirum Sëñ Tuubaa la ndax moom li muy wax nee na da ngeen a jug rek xelam dal ci yéen mu am yaqin ci ànd ak yéen ba nga gën te dara mosu ko soppi waxtu nekk yéen a moom boobu nekkagul Cheikh Mouhamadou Bassir nekkagul Serigne Touba moom du démb tey la du démb doon te waxtu nekk itam lépp lu ko itteel wala lépp loo xam ñor na ko danaan bu ma ko waxee aatu la ma ci bëgg dinaa ko tam loolu muy su ko kon moom si aatu day borom tawfeex kon yàlla suñ borom dolli ay leeram rek. te wóor na ma ni itam fa nekk moo fi gën a fii ndax jël na léppam jox ko Sëriñ Tuubaa ba fàtte ak njabootam fàtte léppam xam ne àll la Sëriñ Tuubaa la yitteem jëpp mooy lu Sëriñ Tuubaa ki fi nekk Sëriñ Tuubaa ma sa bëgg amatu xalaat te lii lii fëkkaati bari na ci àdduna àdduna lii fëkkaati bari ndax ku jug jëm ci lu baax ku ne am na lu ngir bëgg naa gàllankoor waaye yéen yàlla dimbali na leen ba ngeen gàddaayee ñëw fii bàyyi àdduna xam ko lool ba ñu ne ci àdduna gënuñ leen ko xam ngeen xam ko niñ ko xamee wala ngeen raw leen ca waaye ngeen dëddu lépp ku leen seen xam ne murid saadix ya buy dox ku leen fekk fii itam xam ne fekk na fi taalibe Sëriñ Tuubaa dama ko daa wax suñu aatu li ma gën a yéem ci moom saa soo ma saan si bett ko ndax léeg-léeg bu may ñëw sax du ma yëglu waaye bu ma agsi yaa ko fekk ci xasida yaa ngi ko fekk ci sànc ba yaa ngi ko fekk ci biir liggéey bi nga xam moom la sëriñ Abdou Lahad Mbacke doon wax ne nelaw guddi guddi ginnaaw bu Sëriñ Tuubaa ñibbi seen njaarim lañ ko xam moom loolu la doon dund xaal boobee murid yi nekkoon moom la doon dund bëgg ñëpp ne fa yàlla defal na ko ci tawfeex nag ndax tawfeex yi mu ko ci defal mooy waxuma li mu fi bàyyi waaye ñi jaar ci daara ji ba defaroo fi ba defar yeneen i daara ba ay mbooloo defarwaat ci loolu kenn xamut tuyaa ba ji fu mu toll kon moom boroom tawféex la kon ñi koy ñaanal baax a baax tey koy fàttaliku di ci aw mu yëg-yëg ngir xam ne ki ñàkk ku réy ci yoon wóor ndax ku jëloon léppam jox ko Sëriñ Tuubaa la te gisalu ca dara ak bëggam yëpp mooy ndamul Sëriñ Tuubaa ak bëggam yëpp mooy yëkkatiku yoon ak bëggam yëpp mooy nit ñi xam kan mooy suñu Tuubaa te dara mosu bi ci fekk yéen yàlla dimbali na leen ba ngeen ñëwee gàddaay ba na gëni kenn mosu leen dégg ci mbirum àdduna ay daje ngeen fekk ñetti président ci biir réew mi kenn mosu see dégg seen xalaat wala seen position te kenn ëpp leen xalaat ci réew mi loola ndimbal la kon yéen amu leen soxla ci àdduna suñu Tuubaa rek leen tax a jóg li leen tax a jóg mooy xool ki fi nekkal suñu Tuubaa bëgg-bëggam ak yitteem ak luy yëkkati yoon wi ak luy sàmm mbirum Sëriñ Tuubaa ak luy ñoŋal yoon wi kon nag li leen du Mouhamadou Mountakha di tudde yéen soldaar yi yoon murid ñen bu yeggoon am na xalaat yu yu mu doon xalaat ci biir yoon wi ba mu agsee ci yéen dana ñoom ay soldaar la ñoom ñooy soldaar yoon wi loolee nag kon na ngeen xam ne am ngeen sasu rëy rëy kon sëriñ bi moom keroog bi nga xam ne sëriñ Atou bàyyi ko na fi juróom-ñetti wax ci suba la fi bëggoon ànd ko yéen bu guddi waaye ni jamono toll moo tax sax mu bàyyi ba fukki waxtoo ñaar mu door ñëw waaye juróom-ñetti waxtu ba mu ko déggee amatul jàmm te nee na lam ci jublu mooy ànd ak yéen wétti leen dalal seenum xel kon na seenum xel daal bu baax a baax te ngeen rafet jot te xam ne seen liggéey bi liggéeyu Sëriñ la moomu leen ko Sëriñ Tuubaa ko moom am ngeen ndimbal nag ndax Sëriñ Tuubaa mooy tànn ka ko soog mu liggéey loolu te Cheikh Abdou Ahad Mbacké daana wax ne liggéeyal Serigne Touba la ca am solo mooy façon bi waaye na muy fexee ba mu am Serigne Touba noppi na ci kon yéen itam lii ngeen sosoon te ànd ko si yaatu taxawal ko mu agsi fii mu bàyyi ko te tey ngeen ëpp sax tey ngeen ëpp sax kat ndax moom daa doo jàmbaar joo xam ne kum ne ci sa kanam boo bëgg sa doxee da nga dox ndax daa doxloo ñëpp. ndax day yemale ànd saa yow mu tàggu yow kon nag bu demee ba bàyyi ko fi bàyyi leen ginnaaw na ngeen xam ne am ngeen am ngeenu saf saf yi mooy fa mu ko bëggoon a jëme ci xalaatam ngeen àndoon ko moom ngeen gën caa góorlu ba li Cheikh Mouhamadou Mountakha wax keroog na liggéey bi gën a yëkkati ko di gën a kawe waaye bu mu laal suuf mu loolu nag rafet nañ ci njort ndax dañ leen ko fàggul Serigne Touba leen ko fàggul njabootuk Serigne Touba gi fi nekkoon fàggul leen ko ba si fii kon suñ yuusu dégg ngeen li mun taxa wax keroog ci yow loola soxlawut seen seere nee na fu ma gisee sañ aatu sama xel dem ci sëñ yuusu fu ma gis sañ yuusu sama xel dem ci sëñ aatu noonu la ko Cheikh Mouhamadou Mountakha waxee it noonu la demee ci ñun ñii képp ku la séen rek xelam dem ci jëmmam te it wax naa la ko démb da ngay ànd moom ci biir ànd moom ci bitti ànd ngaa moom ci sa jëmm àndak moom ci sa xol ndax man man naa ci seere ndax mosoo bëgg dara lu ko gàllankoor mosoo bëgg dara loo xam ne lu yàqu ci ab liggéey loola nag kon na nga xam ne ba mu lay doyloo ak di leen doyloo yéen ñii ngeen seq liggéey ndax liggéey bi yéen ko bokk yéen ñëpp li Cheikh Mamadou Mountakha wax na njiit mënta ñàkk ndax lislaam ko santaane ak julli ñëpp la ko lis ko suñ borom sant waaye bu ñu àggee ci waxtu julli faaw imaam am loolu mënta ñàkk ndegam yàlla def na nag ab dayre ku ne xam ne ni baaxoo mboolooy àndandoo dajaloo tànn kenn ne kii lañ jiital ni mu dee woon ci yaatu ba agsi ci yow mi Cheikh Mouhamadou Mountakha joxañal la boppam kon loolu doonu la ndigalu suñ tubaab waaye ñu la ci yow ndax xam nañ la bu baax a baax ndax xam nañ sa dëggu xam sa posture xam sa engagement sa digg moom ndax lu ma sa duggat yéen ko daa ànd te kenn mësul caa jiitu kenn mësul caa mën dama la daa tooñ sa waxtu ne fu ma la séenee ngir xam sa dogu ak sa pëstéef ak sa njàmbaar kon nag dañu soññ daayir bi yëpp waa daara ji yëpp ñu gën a góor góorgóorlu rek fexe ba liggéey bii nga xam ne sëñ aat sumboon na ko ngeen ànd ko yéen ñëpp ba mu agsi fii liggéey bi na gën a bir biri di gën a jëm ci kaw di gën a yëkkatu di ëpp dogu di gën a am pëstéef ci jëm ci liggéey Sëñ Tuubaa te xam ne kat moom de fa mu fa mu fa mu jëm ma nga noppalu ndax ku ko mas a xam ku ne xam ne ne waxtaan yi mu doon gën a mujj wax ak sëriñ bi maa ngi koy wax barki démb li ci ëpp jëmatuloon ci àdduna nañu ni ñu bu ñu sëñ bi fàtte ëllëg dégg naa ko ci mbokk Cheikh Mouhamadou Mountakha mi ñi fi itam di Cheikh Mouhamadou Lamine Bara ak Cheikh Sidi Mokhtar naa ba tay mu wax na ko bu ma fàtte ëllëg moom kon xamoon naa ne mission jeex na àdduna noonu rek la ñii day ñëw ne fi ba seen mission jeex ñu bàyyi ko ñee ndax kenn saxu fi kon nag na góor góorgóorlu baax a baax sëriñ bi nag nee na ci seen kanam ne seen ginnaaw ne ci seen rajo ne ci seen càmmoñ lu ngeen nekk mu ànd ànd na ko yéen fas na yéen a gën leen a wéttali ndax loolu la façon ci seen digg moom a jekk waaye xam na ne nag la ak Cheikh Ibrahima Faty waxoon Cheikh Ibrahima Fall ne ko Ibra Fall waneelu yoon ndax lëndëm gu gën a mett ga amoon kan mu am ndax ka daa gis ba gisatu googu lëndëm moo gën a métti ki mës a gis kon yéen tam da a nekkoon ak moom mu ne ci seen biir ngeen di ko wéttilikoo di wéttilikoo Sëñ Tuubaa ngeen ba jëmmam gisatu leen ko kon nag Sëñ Tuubaa ngeen di wéttilikoo Sëñ Tuubaa mi ngeen di wéttilikoo nag lépp lu ngeen fu ngeen mas a àgg rek dooleem ak kattanam moo tax da ngeen xam ne seen yëf yi ndénkaandu Sëñ Tuubaa ndénkaanu Serigne Touba rek la Serigne Mbacke bu sooxoon ndénkaan loo ne loxoom ak bëtam du ci yomb naa yomb na tey kon pêche bi xam na ne mi ngi fi Serigne bi xam na ko yaqinam itam am na ci am na ci yaakaar ci xam ne fa bëggoon a jëmi liggéey bi lu ci yàqu day gën a kon ñu ngi yemale foofu di ko ñaanal rek suñu borom gën a dolli leeram. amiin te lim fi bàyyi itam xolam di ci gën a sedd. xelam di ci gën a dal te xam ne loolu rek moo ci am asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. maa ngi. taalibe sañ naa ñaanal sëriñam ab taalibe sañ naa ñaanal sëriñam kon kàddu gu may wax gudul ñaan sëñ Bass mi mu yàgg fi tëwér rek moom lay wax ndax wax moom kenn na war a wax moom wax na ñun kon sañ nañoo ñaan mu yàgg fi tëwér ginnaaw sëriñ bi daf koo doyloo kon képp koo xam ne sëriñ bi doy na la te sëñ bee doyloo sëñ bas mii di ko liggéeyloo war sëñ bas mi war na laa li sëriñ bi bëgg di la ko liggéey nga am ci lu kawe sa njort waaw loolu rek lañuy ñuy wax ñun nag engagement muy jaayantewaat rek la lañuy wax kenn mës ta gis am néew ñu di ko sang am néew ñu di ko sang mu naan na wëlbati ma wala tàmbaleel loxo bii walla tàngaleel loxo bee am néew day bàyyee boppam ki koy sang ñun ci loxo yi sëriñ bi noonu lañ fas yéene mel amuñu bëgg amuñu lu ñuy bañ amuñu lu ñuy ñoddi amuñu lu ñuy jeñ man ak mbooleem ñu nekk ci daara ji sëñ Aadu li nu àndeek moom moom sosu ko waaye gaynde la ci woon jàmbaar la ci woon am na ci medaay bu ne mooy lan liggéeyal sëriñ bi te bañ a bëgg bañ a bañ féetale sa lépp sëriñ bi loolu nag Mbàkke kon moom ci lañ fas yéene wéy kàddu gu may wax gudul kàddu sant la ak ñaanal la ni la sëriñ bi doyloo yal na ànd ak suñ borom gën la dëpp kàttan ba nga gën koo mën a liggéey ndax sagu yoon bi rek la ñor fu ne yaa ngi xool luy tax yoonu murit saa su ne ku ko gis xam ne liggéey bu sëriñ Tuubaa bi yemul ak dara dara waaw ndax sëriñ Tuubaa mi bind wax ne man zanna annahu yakunu abada yurdihi billazi ka xidmati badaa nafaytu zannahu bi indi andiyal xadim bi maa wanaa misli kullu xadim nee na li mu liggéey yonent bi amul fii àdduna sosoo ba fii ñu yem ak li ne suñ kanam kenn ku mës a defal yonent bi ak ku ko nar a defal lu mel ni liggéey sëñ Tuubaa bi du am kon yow lii nga bëgg te jàpp ko te dogu ci mooy dëgg wéy ci rek nu ngi sa ginnaaw ñun moom armée lañu boo xamante ne ñu ndigal rek ñu yëkkati ndigal rek moo ñu yëkkati armée lañu boo xamante ne kenn ku ne biir koo xamante ne di nga doxee nen lu dul lan la sëriñ bi bëgg ak lan la sëriñ bi wax jiite liggéey bii nag lu yomb la ndax wax naa sëñ Muntaxa nee naa ko man de Mbàkke damaa digg nga wax ne njabootu sëñ Tubaa gii ñii ma bokkal sëñ Tubaa ñëpp ay sang laa leen def ma ne ko ah lenn de moom ma jaaxal mooy wóor na ma ne loolu nga wax mooy li dëgg ci yow waaye wóor na ma ne ñoom ñoo ñu nga def ay sang yow lañ yaakaar ginnaaw yow yaa ngi leen def sang ñoom ñu yaakaar la kon yaa ngi wan taalibe yëpp wan mooy lan mooy yoon bi mooy lan kon ak taalibe ngay jàngale kon nun man mii de nekk ci ñu ne maa nekk ci bopp Hizbut Tarqiyyah fu ma gessoo dinaa gis ñoo xam ne ku ci ne gis naa ci yow lu tax ma jàppoon ne maa war a topp sa ginnaaw waaye dogal bi jëw ñu ne man maa ko jiite jiite googu nag man jàppewuma ko ak pal ndigal dong laa ko jàppee ndax buñ ma laajoon du demee noonu waaye ginnaaw sant nañ ma ko nangu naa ko ndax man maa jaayante woon ne lu ma digal naa ko def luñ ma tere naa ko bàyyi waaye du ma weesu de maag yéen ñu ànd ci lenn lu sëñ bi wax daal dinañ ko def. duñ la war mukk. waaw jërëjëf Mbacke. duñ la baax moom kay ni yoon bi daan doxee rek dara du soppiku lépp ci dal ak lu mu wax ñu jëfe ko ci dal ak sago. nit bu jëlee dara ni sama dund gépp laa koy def foofu mu defee ko sago bu fekkee dara nag bisu tey rek la koy def bu ko neexee mu xaatal xaatari mel ni bisub tey la koy def lii suñ dund gépp sëñ bi lañ nar a nekkal te amul guddi amul bëccëg amul suba amul ngoon yàlla nga fi yàgg te wér na ñëpp tàll seen loxo sëñ bi li may wax daal mooy ci turu ñi mel ni man ñëpp koy wax mooy fas nañ yéene suñu yusum yi lu ñu gën a gore ndax xam nañ ni mu ànd ak suñu aar fas nañ yéene ànd ak moom noonu loolu ñëpp. toll lépp suñ tubaab lépp suñ tubaab ku mën dara rek moo tax nga mën ko. dëgg la te sëñ bi du fi jóg. jërëjëf bi ñor na ko lool. da koo fàggu. te dara mënu ko gàllankoor. dara mënu ko yàq. yéen nag ab ponk ngeen ci. incha moom naa ne wóor ma ne suñu ko doom yu xam itam bët yi mu xool suñu aata mag ko noonu ndax xam naa bu fukki at waaye ba tu ni nit di nit di àndeeg waajuram noonu la àndeeg moom ci biir ci biti loolu mën naa ci seere loo xam